rabbi auzu bika min hamazati shayatin wa auzu bika rabbi an yahdurun mbokk yi jàkkaarloo ci seen chaîne bii di Safina TV ñu ngi leen di nuyu ci asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di dellu siwaat comme niñ ko baaxoo def ci seen émission religion et société ngeen di ko am mardi bu jot 18h fii ci Safina TV di leen jaajëfal kon ci topp gi ngeen ñuy topp. Euh, ak fu ngeen mën di nekk ci gox yi dunia ñu ngi leen di kon boole nuyoo boobule. tey nag émission bi dafa special ndax ku nekk xam na ne depuis àjjuma bi passé dugg nañ ci weeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne mooy gën ji mbindeef lépp lu yàlla bind moo tax mu bind ko. lépp luy doxit ci leeram lay dox moom sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam lépp lu yàlla amal moo tax moo tax kon bu weeram duggee dañuy bàyyi lépp moom rek sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy nekk actualité ñuy sant yàlla bu baax nag gannaaw ba ñu yàlla xéewalee fii ci senegal ay mag yoo xam ne xam nañ dayo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam gëddam ba nàmputal ñu ci ñu màggaale ko ba xam euh, loolu nga xam ne loolu lañ jëmbat ci ñun ñoom mag ñooñule buñ ci cité Seydil Hadj malik rek nga xamné mom moy suñu sëriñ moy suñu way rek day doy insha allah nga xamné mom moom Seydil Hadj Malick radiyallahu anhu ci déggam ndax nit man na jàng ba jéxal téré yi te du dégg te nag xam lu bari te xamé wo xam lu tuti te xamé moko gën Seydil Hadj malik nak xamé daf ko téla dal ba taxna liñ wax ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay wuute te boroom xam-xam yi ne bu weesoo ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Makka la juddoo Amina moo ko jur mooy woy juróom wu jigéen Abdallah mooy baayam mboolem lu dul lool rek ci wàllu siira am nañ ci wuute ba ci sax datu juddoom am nañ ci wuute ñu ne ci rabiwal awal la judd rabiwal awal nag ban fan ci rabiwal awal ca commencement ba ba ca douzième jour ba am na wuute benn bés moo ci amul moom lañ ci tuddul ne ci la juddu kon Seydil Hadji ne bu weer wi xasee teru rek chaque jour nañ gàmm mooy chaque jour nañ gàmm moo waral chaque jour ñuy jàng benn bunt ci burdu bu Muhammadul Busayri mënoon nañu taalifal loo xam ne wala sax li mu taalif bu ñu ci jëloon am luñ jàng luñ gàmmu chaque jour baba ba bésu gàmmu di ñëw waaye ci wàcce boppam ak ci joxam cër yeneen boroom xam-xam yu bokkul ak moom ci honnêteté intellectuelle am moom Seydil Hadji Malick moo tax mu tànn xasida bu sayri boobu nga xam ne ba mu ko commencé jàng la wër àdduna ndax dañ naan Seydil Hadji Malick yàlla may na wali bu nekk lu nekk waaye moom yàlla def ko yokkal li ñuy wax xabul xabul mooy moom lépp lu def rek ñëpp nangu ko waaw loolu yàlla moo ko ko defal mën nga def loo xam ne sax euh, Seydil Hadj Malick ci moom nga ko gisee te doo yëg ne yaa ci moom loolu mooy xabul dëgg-dëgg kon Seydil Hadj Malick yal nañu ko yàlla fayal euh, moom mi nga xam ne kon moo ñu fàggul gàmmu moom moo ko fi siiwal donte sax fekkoon na fi baatu gàmmu ci aada mm-hmm. waaye solal bi mu ko solal mbubbu diine loolu maanaam euh, moom lañ ci euh, moom lañ ci euh, bi maana képp koo xam ne solal nga baatu gàmmu mu bu diine mm. Seydil Hadji Malick nga ciy roy fii ci Sénégal wala ci Afrique de l'Ouest ba mu ko commencé def la ko ñëpp commencé def moom Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu kon yàlla nañu ko yàlla fayal di ci delloo njukkale suñ yeneen mag ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi fii ci Sénégal te di ko màggal ndax ku nekk rek am nga ci cër ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ñëpp a ko bokk Euh, kon loolu lañu waxoon nañ ko introduire gàmm nag coow yi bari nañ ci yaa ngir oustaz bu nekk di wax gàmmu bi daala walla gàmmu nii euh, léeg-léeg sax dañ ciy tàyyee wax ndax boo leen toppee la nga bëgg a def doo ko def ndax danga nga mujj soppi lépp muy xuloo te xam-xam nag ak jaamu yàlla àndul ak xuloo àndul ak coow waaye day baax rek ndax comme ku nekk moo ñuy seetaan te àlliwoo yi tolloowul Euh, am na ñoo xam ne seen wax yooyu mën na leen fàbbi ba yàqal leen yiw wu rëy wii nga xam ne moom la suñu mag ñi fàggul moo tax fu ñu toog rek dañuy bëgg indiwaat leeral ci question bu ni mel euh, bi ma ci mujjee déglu mu ne gàmm bu fekkoon cosaan la ci diine wuute yi ci am du ci am bu fekkoon mën nañ koo taxdiit mën nañ koo limité ne bés sàngam la gàmm kon ñu xam ne wuute amu ci kon am na cosaan ci diine Euh, ndax nee na korité amul wuute tabaski amul wuute ma ne ko enquête tabaski moom mooy feet bi gën a mag ci lislaam mais am na wuute ndax dañ dafa am ñu ne jàngeen ko ci seen xilaasu zahab dafa am ñu ne isxaaqa moom lañ rendi woon te bu dee rendik isxaaq ca baytul muqaddas la amee woon te boo demee màkka di aj place yi nga xam ne fa la maam ibrahim jaaroon ak ismail ba koy rendi ci ci ñi wax ne ismail la rendi boo demee màkka booy aj yaa ngi fay jaar lan moo tax ngay jaar ci place yooyu ci loo xam ne wuute la ci boroom xam-xam yi te aj di farata kon comme aj farata la nag te ay wuute mi ngi ci am te ñu ngay màggal la nga xam ne moom lañ jàpp ne lii la kon tamit wuute boobu mën nañ koo toléral gàmm waaw kon diine wuute yàgg na ci julli gi ngay def sax julli farata bi ngay def sax ay wuute mi ngi ci biir kon loolu du lay ndax buñ xoolee ci euh, yonent bi ci sunna daf daan woor besu altina buñ ko laaje lan motax nga diko woor mu moy bes bi ma judd ko kay kon mi ngi don gam yéen salaa salaam xam oustaz dina ci ñew ci bi waxtaan bi euh, bes bi mu judd wala bi ko dira liko yaayam ambu ba ba muy judd jour bu nek gam la woon rawatina bes bu mu judd keman yi nga xamne feñ na ci kon lool dañ ko non def rek pour tamhid pour wane ne kon o ker mun ko genn ci alquran ke mun ko genn ci sunna daje waxtane yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam wax ay jalooreem te yàlla mo ne yoonte bi maa ngi lay netali qissa yoonte yi la jitu won ngir nga man ci waru nahnu naqsu alayka nabaahum bil haqq nahnu naqsu alayka nabaahum amna na fu mu waxee ba li nu sabbita bihi fuadak ngir ñu mëna saxal sa xol motax malay netali lay nettali xibaaru yonent yi la jitu won ki nga xamne mo gën yoonte yoy yeb nak te yonent yooyu yëpp ku nekk sa mission da nga doon defal introduction sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wane na am na ku war a ñëw moom moo moom mission bi yàlla ne ko dama lay nettali seen jaar-jaar ngir sa sa xol mën a dal nga xam ne kon sa mission bi nga yor mission la kon kooku nga xam ne nag moo gën ci ñëpp naka la nag buñ fekkee dañoo war a daje ngir di ko màggal di nettali ay jalooreem lan la war a def ci ñun ñi nga xam ne ay nit ordinaire lañ kon kooku mooy cosaanu gàmmu ci alxuraan mooy cosaanu gàmmu ci sunna ci gàttal tey nag ñu am fi ay gan yu spécial euh, ay tàggkat yu yonent bi yi ñu ràññee ñoo xam ne ñi ngi koy def di ko awale fa nga xam ne mag ñi foofu lañ ko doon noonu lañ ko doon defee di ko def ngir jaamu yàlla <coughs> euh, ñu mën cee tudd kon Mouhamadul Bachir Gueye euh, ak sëñ Babacar ak boroom xam-xam bi nga xam ne moom lañu àndal mu war ñoo firil incha allah di al oustaz Mouhamad Ndiaye di ndaboot di njaboot ci suñu maam Ahmad Ndiaye nga xam ne moom ku nekk xam na digganteem ak euh, waa Tiwaawoon macha allah ñooñu lañ war a àndal ci émission bi tey incha allah tey moom xam naa émission bi dana ala dawme euh, kon ñu jox leen rek ñu nuyoo ñu jox Mouhamadul Bachir mu nuyoo incha allah Mouhamadul Bachir kon kàddu gaa ngi noonu. ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci sayyiduna Muhammad sangu sangu yi. noonu la ñuy ñaanale maam Cheikh Seydil Hadji Malick yal na yàlla yokk leeram testaas ñu ci barkeem ci barke Seyduna Muhammad di ñaanal Serigne Babacar Sy Mansour ibnu Alhaji Mansour ibnu maam Cheikh Seydil Hadji Malick xalif général des Tidiane yal na yàlla yàggal ko fi mu àggali ak sago ndaal yi nga xam ni ay wayjuram ay magam ay maamam ndaaloon nañ ko muy benn bi ci jiitu muy jumaa ji yal na àgg ak ci julli inauguré ko ci barke Seyduna Muhammad noonu la ñuy nuyoo usratu malik yi yëpp ak njabootu si alxaaj malik di la nuyu al oustaz alxaaj munir ñang bu euh, imam Cheikh Ahmed Tidiane ñang munir di sama sëriñ xam nga bokk ak sa sëriñ émission moom dafay xaw a doy waar ndax wax dëgg yàlla ki la jàngal alxuraan defal la lépp boo jàkkaarloo ak moom tey di tari kon dana métti lool waaye munir ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Safina TV yëpp di ñaan yàlla yàlla def fi jàmm ñëw nag ànd ak sunu kilifa sunu xarit sunu mag sunu lépp muy oustaz Mouhamed Ndiaye sopp nabi bu Bouchra ànd ak sama frère sama rak Serigne Babacar Fall nga xam ne ñoo bokk mission bi muy ku jàmbaare kon nag alxaaji Munir looloo ne woon nuyoo bi fa tabarakallahu tabarakallahu nuyoo bi am na solo Mouhamadul Bachir muy xale boo xam ne ku yaru la macha allah ku jàmbaar aussi ku am yitte ku am yëg ci nit la moo tax bi ñu naalee lii ñu ne daal Eh, tan nañ ko pour man ko ci dalal inshallah allah xamna ci biir émission bi dana ko xaw a sànni xeer ndax ab gayen la gayen legi ñu joggé ci gayen bi jox faaleen bi mom tamit mu nuyoo Babacar waaw alaykum wa rahmatullah ñi ngi nuyu ñep ku ci nek su tur ak sa sant di len ziyara di len balu haq te di len bal di ñaan yalla subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal di jël nuyoo di ko teg ci ki nga xam ne mooy suñu kilifa muy Serigne Babacar Sy Mansour nga xam ne mooy xalif général kullu Tidiane di ko nuyu di ko jël nuyoo teg ko ci loxo mu yóbbaale képp kuy kii ci xadara bi mu yóbbaale la di nuyu waa télé bi Safina di ñaan yàlla yàlla nañ leen dégg ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke weer bu tedd bi di la nuyu kilifa gi sëñ Munir ila jaajeufal bu baax di nuyu dal bepp mbollem julit ñi nekk ci aduna ñi ñi dégg ak ñi ñi déggul ñi ngi leen nuyu di leen masso bu baax te di leen balaq àq babakar Babacar bi amna solo amnañ fi falen, amnañ fi gayen yaakaar bu fekke ndek nañ ba suur rek émission bi war mëna neex inshallah ñu jall na ci al oustaz mohammed ndjay momit mu mu euh oustaz bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen ñu nuyu bu baax di leen ziyaara waaye di jiital ci nuyu bi tabaarakallahu ustaas Muniiru ñang di ko ziyaara di ko ñaanal jaamu biir ak biti ci barke Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam di ko ndokkel ci weeru tedd waaye di ci ndokkel sunu bopp noonu la ñu def nuyu xalifa général Tijaan Sëriñ Babacar Sy Mansour bu ñu ko nuyoo mu yóbbaale njabootu Cheikh Seydil Hadji Malick yëpp nuyu waa Bouchra sëriñ Ahmed Ndiaye njabootam muy sëriñ Habib ak njabootu daar ji yëpp ñu ngi nuyu mboolem koo xam ne rek yaa ngi ci jotaa bi di nuyu alxaaji Basir Al Amin di nuyu alxaaji Babacar di leen ziar bu baax di ñaan yàlla defal ñu jàmm ak sutura ci barke Sidina Muhammad di am mbégte bu baax nag di nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi bàyyi xel Safina TV ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di tuuri làmbaayoo yàlla na nekk ci télé bi ci barke rasulillah alayhi salaatu wasalaam wasalaamu aleykum ورحمه الله تعالى وبركاته جيرجف استاذ نيو بي امنا صلو ما شاء الله نيغ لاني فاي نيو يي نيب كون دي لين دالال نين خامني سين كير نين نيك ان شاء الله كون دون ديف رك لودول بشير نين اوبي ان شاء الله نين اوبي اي بن قصي قصيده ماغني لغ ان شاء الله نين خام نو نين ديف اك استاذ كون دا لغي مان داماي توك رك دي سين سين ايميسيون شاء الله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 بيصلي صل على المختار من مدار والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا مولاي صلي وسلم دائما عبدا على حبيبك خير للخلق كلهم وصل ربي على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 وهجروا ولو عووا وقد نزروا مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم وبينوا الفرد والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتظروا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم أذكى صلاة وعن مها وأشرفا يعتر الكون ري يا نشري العتير مولاي صلي وسلم لم دائما ابدا على حبيبك خير للقلب كلهم بعبقة بعبي مسكي عكياتي انت بيا عرج رضواني ينتشر مولاي صلي وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عد الحصى والسرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمنار مولاي صلي وسلم دائما عبدا على حبيبك خير للخلق كلهم وعد وذني مساء خيل الجبال كما يلي قطر جميع الماء والمطر مولاي سل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم عد الحصى والسرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبا الأرض والمدار مولاي صلي وسلم دائما عبدا على حبيبك هي الخلق كلهم سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة مرر وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجله القبر من ذالت به الغيار والآل والصحب والأتباع قاطبة ما جل ليل الديان أو الصحيح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 وعبدي نجلي عثمان الذي انتشرت به طريقته يا حبسا وزروا مولاي صلي وسلم دائما أبغى على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على النظير واهل البيت كلهم يا ربي صل على من أبدا على الحبيب واهل البيت كلهم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 به واجزي نعمانا عنا محمدا من المختار في الخدم وسلي يا إلهي واجزي نعمانا عنا محمدا من المختار في الخدم فتبارك الله ما شاء الله في دوري محمد البشير أمن الصلاتي مدر القصيدة المدرية nga xam ne Mouhamadul Busayri façon bu nekk rek jullee na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lim bu nekk nga xam ne kon foo ko jullee foo ko tàmbalee fu nekk rek maanaa yool ba fay wàcc ak anwaar yi fay wàcc kenn xamul nu mu toll kon du ñu sori rek dañuy jox ustaas incha allah rek mu dugg ak ñun kon ci waxtaan bi Euh, ñu laaj ko kon kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak euh, lan moo tax mu yeyoo ñu di ko màggal saa su nekk même sax bu dul gàmm ndax borom xam-xam yi nee nañ chaque jour boo jàng salaatu fatixi boo wasifaa gàmmu nga boo laazimee gàmm nga foo jàngee salaatul fatixi rek gàmmu nga euh, yonent bi salaa sallam fan la amee boobu mérite waa alxaaju Maniru ñu ngi am mbégte bu baax ak kontaante bu baax ci jotaay bi ndax yu leer la tabaarakallahu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam waxuma sax ci hadith bu wér waaye xer rek dafa nangu ñu waxtaanee yonent bi xel rek dafa nangu ñu toog jotaay ne kan la ñu waxtaanee mooy muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam ndax ku am jàmm rek yaa ngi amee jàmm ci yonent bi wax nga sànq ne jibu awlaadikum ala salaasati qisaali xub nabikum wa ahlul baytihi wa qiraati alquran nee na ngeen yar seen njaboot ci ñett ñu ne ko lan la ñu yar suñu njaboot mu ne ñett yi na ngeen ci fexe ba tàggat ci seen njaboot ak seen bopp mooy na ngeen fexe ñu bëgg ma te bëgg ki ngay bëgg dafay fekk nga xam ko ki ngay bëgg dafay fekk nga jàng histoire xam ko kon Moustapha moo njëkk a jàngale boppam ndax wane kon war nañ koo jàngale kon jàngale bi nag war nañ koo tàntal fu nekk moom Seydina Muhammad Ali salaatu wasalaam ndax boo ko tàntalut yàlla tàntal boo ko tàntulul malaaka yi tàntal nañ ko ndax alaaji ma niir mosoo dégg ci mbindee fi koo xam ne yàlla nee na maa ngi julli ci moom kenn rek la dégg yàlla na maa ngi julli ci moom ba léegi ba jamono ji ñu toll yàllaa ngi julli ci yonent bi ndax jam mooy saluuna moo tax ba waxoon sallaa ñu xam na yàlla julli na ba pare ci yonent bi waaye yusalluuna ba léegi yàllaa ngi def julli ci yonent bi fi'l mudaari ci grammaire mooy lu teew loo xam ne yaa ngi ciy def pareegoo ko loolu mooy fi'lul mudaari yàlla nag ba léegi mi ngi julli ci sayyiduna Muhammad te julli ci yonent bi gàmmu la kon yusalluuna ala nabi la yàlla wax ndax yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman inna allaha wa malaikatuhu yusalluuna yàlla nee na man yàlla maa ngi julli ci sama waaji ji su ma amoon bureau bi moy xëy benn bureau laay xëy dafa ne mooy bureau julli ci yonent bi rek ci laay nekk di fi def suba ba ngoon jot samay malaaka tamit ñi ngi julli ci rasulillahi kon wala yaa mu na déedéet ndax muslim ak mu'min dañoo ëppante garaat yow mi am cofeel yëg na njool maaka bokkut ak yow bokkut ak sa baay njool maaka rek ngay jàkkaarloo ne na ko moo gën sa baay mu bég ci na ko moo gën sa yaay mu bég ci waaye ku dul njool maaka boo jàkkaarloo moom na ko sa baay di yow ko gën mu am ak yow problème yàlla ne waxuma ñi jébbalu déedéet ñi nga xam ne am na imaan ci seen xol leer a ngi tàkk ci seen xol yàlla nee na julli leen ci sayyiduna muhammad ndax julli gi yàlla ci yonent bi rahma la jullig yàlla ci malaa malaaka yi julli gi ñu julli ci yonent bi maxfira la waaye ñun julli gi ñu julli ci yonent bi ibaada la mooy jaamu yàlla kon ñun julli gi ñu julli ci yonent bi jaamu yàlla la te waxtaane Moustapha day tax nit ñi sopp yonent bi loolu rek mooy gàmm waxtaane yonent bi day tax nit ñi sopp yonent bi te ko sopp roy ko koo roy rek mu defar la li tax ñu koy waxtaane pour ñu sopp ko ndax boo soppee nit mu roy la nga roy ko te yàlla dafa waxoon ci alquran ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kaana yarju llaahu yawma alaaxira kon yàlla jox nañu benn idole kenn la teg ci jaamu yàlla yi muy ambassadeur bi dox diggante jaami ak yàlla mooy sayduna muhammad yàlla nee na jox naa idole sayduna muhammad muy seen idole ndax xool naa jikko ja baax na xool naa ne yiw na xool naa ne rëyut xool naa ne soxorut xool naa ne kiñaanut bu ngeen ko toppee am ndamu àddina am ndamu laaxara kon ñu waxtaane njol màkk dara nekkul ci waxtaane sayduna muhammad dara nekkul ci te xasaan ibnu saabit géwél la ci sayyidina muhammad xasaan ibnu saabit moo doon tagg rasulillahi yoon màkka dafa daajlu benn pëjam ñëpp yaakaar njool màkka ci toog mu daajle ko defar ko ba mu baax décorer ko ba mu baax na ana xasan ibnu saabit xasan na ko maa ngi mu ne ko yéegal fii xasan yéeg mu ne ko tagg ma ndax inna ruuxul qudsi yu ayiduka tagg ma waay ndax jibril mi ngi ànd ak yow dina dëgëral ndax loo wax doo am njumte waxal ci la xasaan di woy sayduna muhammad salaa sallam naan hajawtu muhammadan barran xanifan yéen yéen yéen waa Qurasin yéen noonu njol màkk yi yéen a ngi koo xam ne barran ku baax la anifan ku mën a la koo xam ne siimatuhu jikkum alwafaaw mooy matal kóllëre njol màkk matal kóllëre rek mooy jikkoom Hassan ibnu Saabit nee na bala ngeen a dal ci kaw njool màkk jaaye naa leen sama der ak sama deru yaay ak sama deru baay bala ngeen a yegg ci njool màkk kana njool màkk moo defal loolu Hassan ibnu Saabit kon yow mi nga xam ne am nga temps am lépp kon war ngaa tagg yonent bi nit ñi di bëggee sayyiduna Muhammad ali salaatu wasalaam moo tax alxaaji Malik mi xam yonent bi nëbb boppam feeñal sayyiduna Muhammad nee na man Maodo wootiwuma bés wootuma bés bi ma juddoo ki tax xew ba xewal mooy kenn mooy Seydunaa Muhammad kon kooku la ñu war a tàntal kon kooku la ñu war a waxtaane waaye keneen ku dul moom waruñ koo waxtaane ya sayyidal kawnayni ya alamal muhda ndax doon ma màkkal Alxaaji Maalik sëriñ bi damay fay di wax avant internet di am ci la Seydil Alxaaji Maalik connecté ci ragal yàlla ya sayyidal kawnayni ya alamal muhda ndax yàlla dafa wax ne man ma ragaleen ma xamal leen loo xam ne xamu leen ya sayyidal kawnayni ya alamal muhda

min alwaxyi wa huwa rasulun min xalli baabil ay nee na sidina Muhammad yësukaayu wax yu wax yëpp mu ngi xali baabil ay والأي والهدى نينا بحثت أمين الوحي والرسول لنا سيدنا جبريل بدبارة جحظة إلهية يلا جحك لم كو أي آيات أمر فن فمتيري لرد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فكيف يطيب الأمر نينا سيدنا محمد جبابهم munir xalil baabil ay wal xay wal huda waaye maxatul aminil wax wax yu timin ci sayidina Muhammad salaa salaam lay teeree. fa kayfa yatibul umur. Alaaji Malick nee na dëgg-dëgg yow mi waa wax ne buñ gàmmu man Maodo ñëwumaa toog duma gàmmu. in dumtu hawla. Alaaji Malick ne naka la samay dund yu neexee. wa ala alladi. naka la samay dund neexee su ma toogee fii nga xam ne mooy réew mi di Sénégal. lawlaa wudaa sabilu. Alaaji Malick nee na waxal na la si. تنك فل لولا بنا كتون موم دا عدنا سانكو الصبير يونيو الحاج بسير لب لو خمن نجوب لنجول ما كم وك انكر نبي اندو كتي جامو يالي الله شاب الحاج مالك نكون نجول ما كت يو دا عدو من لي خمل مي فكيرة تي دعاك كم از ام برالي مكمل دي جيخل دوم نجي تي اي سوبر جنا سوبر لما نفهم نكو باي نفهم تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موي موي متى ما دان بحرك من قدور فصاف صلصل البحر الامين سيد الحاج مالك خم فوف الحاج مالك دافا داف تقلص دي اول البلاقه واخ تقلص تقلص موي غي واخ بن مير ديكو واخ ديكو واخ ديكو واخ با ген تي مير ما دم تي بنن مير تي كوي دغل وانا كي سيتال خمنا ген نغا تي مير نخلا ما ني فيما جوغي اك فيغا دم براسك بن الحاج مالك داف تقلص ني matama daada sa yu aadoo baxaru ke sa géej gii yow daaru min ko dóoru ci nixi fa saafin aji sell la géeju njool màkk dafa sell dafa set salsalun aji neex la sedd na neex na sëf na suukar te géej njool màkk doo lab ñu ne ko kooku mooy kan mu ne baxarul amini mooy ki yàlla wóoru ci jaamu yàlla yi al amin mooy njool màkk avant mi am 25 ans ñi la tuddee nekk al amin ñi ne ci 25 ans lañ ko tuddee al amin alxaaji malik ne moustapha mooy mouhamadul amin yàlla tuddeewul ko ko waaye yàlla ko def ca laa ñu jaamu yàlla ñu koy wax Muhammad Muhammadul Amin. ndax ku am soxla moom nga koy dénk. ko am aajo moom ngay dem waxtaan ceeg moom ku am secret bañ secret ba siiw moom ngay waxta moom nga koy dénk waaye ku am alal bañ alal de sànku moom nga koy dénk. ba keroog bay yonent yàlla Muhammad di génn màkka ak lu koy màkkee bañ di ko nooy nan njabarkat laa ku bon laa ku nangam la alxaaji Maalik ne téewul seen ndénkaane jool màkka leen ko jox. est-ce que. nga bañ ñun lool. Mm-hmm. di ko tam lu nekk. Mhm. guddeeg bëccëg ngay wax ci moom lu ñaaw guddeeg bëccëg ngay wax ci moom lu ñaaw waaye boo amee alal ka ngay ànd di ko xas da ngay bàyyi kooku daw ñëw ci waa ji nga xam ne moom ngay xas guddeeg bëccëg la ko am alal ji dénk naa la ko ndax xam naa ne ku ma ko dégg ko dul yàlla mu yàq ko wala mu sàng ko ba keroog bay njool màkk gis nañ njool màkk maanu gi mu wane. njool màkk yiw gi mu wane keroog ba ko màkk sonalee ba yàlla jox ko ndigal mi génn mënoon naa daw ak yóbbanti bu doon am ñëw dafay daw ak yóbbanti dem ak dénkaane ya waaye njool maaka dafa oo Seydina Ali ibn Abi Talib na ko xool xam nga lan la tëddal ci lal bi may tëdd nga tëddee comme ni may tëddee waaye mbàjj gii lay sàngoo sàng ko xoolal dénkaane bi diwa ko moom dénkaane bi diwa ko moom diwa ko moom maa ngi dem xoolal njool maaka loolu maanu te pire la Seydina Muhammad jàngale سوار لا ري يالا جوخي ندغال نلا генال ماك المكرم نو مونو داوال ادو جامو يالا بور نيك مونتا دوند واي نول ماك القناعه كنز لا يفنى بو كومال كومال موي مانغسي بو خامن دو خاد جو جيخ سيدنا محمد نون الله الحاج مالك نكون متى ما دار بحرك من كدور فصاف صرصر البحر الامين نيوكو كو خامن كو مون نبي كو يالا سولولا نبي كو يالا سولولا عبقري ني كو يومبل مي ab xëri yun mooy alkaamilu min kulli shay'in mm-hmm. loolu maa ko dafa mat ci lépp mm-hmm. jikko ja man na bii dama man na ndax fa huwa alladi tamma maanaahu wa suuratuhu mm-hmm. suma safa habiban baayu nasimi sidna Muhammad personnalité bi daa mat sidna Muhammad jikko ja daa mat léegi-léeg nga taar lool waaye sa personnalité yàq sa taar waaye njool maa ko daa boole jikko ju mat boole mooy personnalité bu mat ak bind bu man moom rasulillahi yàlla xam ne njool maa ko defar naa bindi bi ku ko gis sopp ko mm. loolu màkk mi defar naa jikko ji kum jëflante nga bëgg ko yàlla na kon xam nga lan laay def damay def nga nekk sama ambassadeur sama diggante ak jaamu yàlla yi mm-hmm. ko tànn mm-hmm. nga na ko yaay nekk sama ambassadeur ci diggante ak jaamu yàlla yi mm-hmm. ku la topp topp na ma ku la mooy mooy na ma ati wallaha wa ati wa rasula ati wallaha fii faraidihi topp leen yàlla ci ay farataam waaye wa ati wa rasula fii sunnati yi na ngeen topp sidina Muhammad ci sunna yi شغل حاجة مالي سيدنا محمد أبقري الله الرحيم قد سنغلا صفي الله كوك ما يسكت يا الله بسوء كل قبيوني ما يبرم جي كوجو باخي كون ما تخني وقت أنا جوال ماك على جو مني ربني وحين جوال ماك ركوم أنا بردوانا لا نديك جنا جوال ماك كات دانا بال أي نونم تي الله بودي جي لولو صنع لوم لا دفن كو بال نخ رأي فان جوال ماك اسكي خمدا خاورز مو حارس جوال ماك ركوم تبدي تبان نجرب من خرالة xawra ibnu xaar ndax saaba yi dañoo bëggoon njool màkk ba bu njool màkk toogee dañ koy donn met ndax sopp ko ndax bëgg ko bu ñu ànd ak njool màkk dañuy bàyyi njool màkk jiitu ko ndax ñi mu ñoo toll ak njool màkk foofu la tariqa bi jëlee de booy ànd ak sa sëriñ bu toll ak moom ndax njool màkk amul amul tax tariqa bi jëlee na booy ànd ak sa sëriñ buy toll ak moom ndax wuur ndax royee ko foofa ca saxaaba ya xawris ibnu xaaris fekk fi njool maa ki tëdd di nelaw ndax Moustapha bu doon nelaw bët yi ñooy nelaw waaye xol ba du nelaw ndax waxoon na tanaamu ay nii wala yanaamu xal bi sama xol samay bët danay nelaw di gëmm waaye nag sama xol ma ngay dem ca xadratu ilaahi di jonj ak leeru yàlla yi xawris ibnu xaaris fekk fi njool maa ki tëdd mu fëggal fëggal njool maa ki njool maa ki nag xafee bët ya leer nañ li mu yedd génne ca bët ya xawris ibnu xaaris tey jaasi ji tiim njool maa ki na ko kan mooy dox sama diggante yow ba du ma la rey Seydina Muhammad xool ko muuñ na ko kanaa yàlla mu sàkk jaam mooy tax doo ma rey sama dee mi ngi ci loxo ak yàlla. xawras na ko loolu wax mu ne ko waaw loolu laay wax xawras buuru uti njool màkk pour wax la rek jàngale njool màkk pour ñu roy Seydina Muhammad. xawras buur ak jaasee pour a coor njool màkk. bi muy daw rek am na ko teqatal. mu daanu bi mu daanoo mu daanu fële jaasi ji dana fële. Mm-hmm. borom bari yor woor ba jub téye jaasi ji. tiim xawras xawras moom mënut a jugati. lor mhm. màkk te ijaas yi tiim xawras. naan ko kan mooy dox sama diggante yow ba ma la rey yow mu bëggoon a rey kan mooy dox sama diggante yow ba du ma la rey ndax téere fiq yi jàngale neen nit bu la demee ba a rey am nga sañ-sañu fay taxaw mhm. défendre sa bopp. Mhm. loolu màkk na ko kuy dox sama diggante yow ba du ma la rey waa ji xool góos xool duraat xool ne amul benn mbokk moo xam ne mun na koo jàppale te xam na ne waa ji ku ko ñaan ci jikko ju baax mu fekki si la mu ne ko xam nga lan laa bëgg nga baal mu ngir sa jikko Mhm. yolma ko nag jéggal naa la ngir yàlla subhaanahu wa taala fa tabaarakallahu am na solo oustaz mm-hmm. fi nga génnee ci mérite yonent bi sallallahu alayhi wasallam bañ war koo màggal mm-hmm. oh, wane nga ne aussi yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla ak malaaka yi ñoo ko njëkk a tàntal mm-hmm. ci inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi ak yeneen jàngale yi nga xam ne leeral nga ko ci biir macha allah ci xam-xam bu sell bi fa tabaarakallahu léegi balaa ñuy continuer rek ñu may la nga souffler tuuti ñu jox Mouhamadul Bachir mu dugal beneen xasida ci quelques minutes après oustaz soog a continuer incha allah ليلى العوبات حلى دروفي رجبي ثم المنادي ينادي المزمع الفهيم na ala nabi wa alayhim e ku bëgg yonent bi defal ni na ah. rabbina daiman am sëriñ bay samaam nee na ida wadaati yusami muhammadan al amra tumi أي كتمان فتغتني على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما بيس السمام لنا جبل ودا ثم بحر والباء أدبا حلول لخير li waral على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما عام بسلمي ثم بن عوف وسعد سابيا loxo yi ca kaw saaba yaa nga loxo yi ca kaw saaba yaa nga Abubakar saaba yaa nga ayna Umar saaba yaa nga ayna Usman saaba yaa nga ana Ali saaba yaa nga loxo yi ca kaw saaba yaa nga ana soppey Mamadu saaba yaa nga ana ñi bëgg Mamadu saaba yaa nga ku nabi jaral loxo سابيا تجار اللحي سابيا تجار اللحي سابيا يا رسول الله محمد سابيا يا جرى مقل كندو ينتبي يا رسول الله محمد سابيا محمد سابيا محمد سابيا يا حبيب الله يا جرى مقل محمد سابيا يا جرى تنتل محمد لمن يا جرى مقل Mamadou Samba yaa jara màggal Mamadou Samba Serigne Mbaye Mansour xalifa bi Mamadou na nanu burdu populaire na wër mi ñu way yoneen yaa jara màggal loolu Serigne Mbaye wax xalifa bi joxe na ndigal waaw ku ne nga gàmmu sa kër waaw Mamadou yow laay sa góor yaa jara màggal yaa rasulallah والله يعلم أنني أهواك ممضو بين رسول الله رسول الله يا جرى مكة واو bu may doxantu parcelle bu may doxantu parcelle xale yi naan Bachir gën a leen yaa jara mag bu man yeneen ci bi la yow de yaa ma siiwal man Mamadou yow yaay kii ma doy yaa jara mag همة عظم عبد الله جاء همة عظم عبد الله سابري همة عظم عبد الله جاء همة عظم ابن عبد الله جي همة عظم عبد الله جاء همة عظم سفينة تي في همة عظم عبد الله جاء همة عظم عبد كلمة واو كلمة يو يا نبل يونن كلمة كلمة يو يا nampal yonen alimatu saade nit ku nekk yow da yow am nga ku lay yëngal nit ku nekk nit ku nekk yow am nga ku lay yëngal kullu isbin bi maa la doy fay kon loxo ca kaw ñun taalibe cheikh maam xalifa nuy yëngal doomi Maodo ji léegi-léeg nga dégg nit mu ne la yaa may daanel ñun tiijaan ñi maam xalifa moo nuy daanel doomi abdalaay jaar jaaraama maam mawdo mawdo yaanu xamal yonnen yonnen bu xamee maam mawdo bu ñu ko xamee mawdo moo ko waral muhammadu moo di turam yaasiin mooy turam muhammadu moo di turam taaha mooy turam turam Muhammad moo di turam Bashir mooy turam Muhammad moo di turam lu baax yelloo na yow loo mën a wax doo paase kii baax na nabi mboolem teraanga yi xéewali yaa waral xéewali yaa waral xéewali yaa ko waral nabey sunu wasilato ñaangi ñun amuñu geneen ge géer bëgg ñu geneen géer girugu la may wax na ko mbaa mu xoole la ko loxo na biku la fi bàyyi dem bis bu demee lu muy wuti xam ana ku sopp sëriñ Babacar loxoy ca kaw safina la wayal yéen yéena tantal yonen safina la wayal yéen yéena tantal yonen soppay yonen kumba ci jaaral loxoy ca kaw ya rabbi salli ala al mahmud sayyidina wa qbal shafaatu atum fina wala على نبي وعليم أجمعين سلام ربنا دائما عام بسببهم ما شاء الله تبارك الله أمن صلى خلي سدنا خلي فيخنا دوغل نين تي لير تي ني نين تاغي يونت بي صلى الله عليه وسلم يالنا يالا فايلن يالنا يونت بي تامي دغلن صلى الله عليه وسلم kon oustaz ñu continuer rek fi ñu tolloon dafa mel ni sax borosaale nga suñu deuxième question hmm. mooy euh, jullit naka la war a soppee yonent bi sallallahu alayhi wa am na loo ci commencé woon waaye nga gën ci xuusaat incha allah ndax ñu ngi gis ci xadis mu naan anta maa man ahbabta am fu muy waxee tamit ne boo ma gënul bëgg sa yaay ak sa papa sa cofeel ci man des na ba mu koy wax Seydina Omar nga gën ñoo xuusal foofu ci sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tabarakallah alxaaji question bi am na solo waaye suñu ndam yi tabaarakallaahu ay ndaanaan lañu ay ndaanaan lañu ñu ngi la ñu béggee bu baax a baax way ku ko dégg rek ndeysaan daf lay yëngal yàlla yàlla barkeel ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme fi ma nekkoon rek mooy xawlas bi ko yonent bi waxee baal naa la te yàlla tax Moustapha daf na ko tuubal mu ne ko day yomb bàyyi rek ma dem mu dem ci ay nitam ne leen jógee naa ci koo xam ne moom laa gënoon a bañ ci jaamu yàlla yi waye tay maa ngi dem ci ko xamne mom la gëna sopp ci jaamu yàlla yi tay di tax jekku nako pour war ko ray te bu kontu noonu su ma koy jekko dama koy ray mu wëlbatiku jekku ma baal ma tay yàlla tax ki kuy baax mo la gën kon walaysa nafun ala hubbin bila amalin wa tabi'an sunnat al muxtaari tëxtin mi ne kon deug deug dal suri da ngay wote ciofel ci Seydina Muhammad da nga beug rasulullah fu ko wax ka di waxe nga beug fu ko wax ka di waxe sa xol al alxaaja Malik ne fexeel ba top Seydina Muhammad ndax walaysa nafuun déedéet jëriñ ala xubbin ci mbëggeel bi la amalin ba ana ak jëf wa taabi an sunnatal muxtaari taqtanimi wa taabi an nga top ñu ne ko koy top mu ne sunnatal muxtaari ki yàlla tan ci jami soko defé taqtanimi mawda neena da nga am kooma adina taqtanimi da nga am jàmm ci sa bir gox taqtanimi da nga am jàmm ci bir bàmmel waye taqtanimi ëlëk yoomal qiyam mustafa ramul ndax sopp nga ko almaru ma man ahaba سيدنا محمد نينا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب حتى أكون أحب من ولده ووالده والناس أجمعين أنا بين في وقت وما لي صح مصطفى دف وقت سيدنا عمر نكو عمر ما عمر فاتولي كمان تبجيل عمر نكو يا مجنن لب بمويمة سيدنا محمد نكو عمر سنجم يا لمن تمن لرود من مال جنا سبكان ما تخ مال سلب نح النبي أولى بمؤمنين من أنفسهم yàlla nee na yonent yàlla Muhammad moo gën a yell ci seen dund bu dee taxawoon ngeen war a dee Moustapha wara dee joxe leen seen bopp ngeen dee Moustapha dund ndax Moustapha dund moo ëpp njëriñ seen dund loolu la Aboubacarin Siddiq war a def ca xunt wa ba jaan ja laal ko Moustapha ngalab ngalab laraay ko dangar ja wàcc kon nga yëkk ne Seydunaa Muhammad bëgg ko mooy mooy defar àddina Muhammad Seydunaa Muhammad bëgg ko mooy taaru àddina buñ bëggee yónnante topp bu njàngalee Seydunaa Muhammad sunu àddina sunu lépp daneen jàkk waaye bu ñu bàyyee njàngale yonent bi topp rasulay bëgg nu yonent bi suñ dara du baax ndax inna man umumu axlaaqi ma baqiyat fa in zahabu axlaaquhum zahabu loolu la waxkat ba wax ne bu demee ba jikko yi yàqu rek jikko yi bon mooy ñu bañ a jopp njàngale rasulilay fek ñu ngi moy jàngale rasulilaay jikko yu bax te bu jikko yaqo yàqoo société bu ëlëk day yaqo wax kat bene ma daqil bilad bi ahliha walakin axlaaqu rijal tadiq neena dëkk bi xatut bureau yi xatut kër yi xatut néeg bi xatut lal bi xatut ñu ne ko lu xat mu ñu dekké lal ba wala ñu dekké kër ga wala ñu dekké ci société ba ño xat waye lal bi xatut dara xatut kon bu ñu roy sayyiduna muhammad serigne sunu adina bax bu ñu roy rasulilaay sunu adina jak fi ma lay wax rek moy xol sayyiduna muhammad keroog bi mu démé taif lako wa taif def ñi ne am na fa weer ñii ne ñaari weer na fa am Abdoul Yaal Masoud Habib ñoom ñëpp wax xale yi ñàkk teg gi ne leen dàq leen waa ji ñu génn ñool màkk di ko sànni ay xeer keroog wax nee na ñool màkk dem na ba deret ji di wadd Seydina Muhammad di dëkk dëkk na ndax bañ deret ji laal suuf ndax bu deret ji laal suuf yàlla faara àddina bi Seydina Xaaris mi àndaloo moom di ko maral deret ji rasulillahi mbaax gi mu baax ndax keroog ba yàlla waxee ne laqad jaakum rasulu min anfusikum asisun alayhi ma anantum harisun alaykum bil muminina raufun rahim malaaka dañ na waaw raufun rahim yàllaa ko moom lu tax mu tax ko mu jox ko waaj yi yàlla kii am na fu mu ko teg de exemple ñuy jëw ñuy jëw ñuy jëw mala yonent bi ne kii daal am na fa ko yàlla teg waaye keroog bi mu safaa nekkee ci problème yooyu ñu xaañ ko génn ko dëkk wax ko wax ju ñaaw yàlla yónnee jibril ma ànd ak malaaka bi nga xam ne mooy yore wàllu mbugal jibril na ko yàlla ngi lay yàlla nee na boo joxee ndigal ñaari doñ yu mokk ñu këppalante ko ci màkka ñii na màkka la yàlla namm ndax màkka mooy sababu génn sayduna muhammad ñii na tayif la waa tayif la yàlla namm rasulillahi na ko waa jibril ndax yàlla lii la may fayee ndax yàlla lii la may fayee yàlla na nga leen jéggal rek ndax ñii xamuñu may kan bu ñu xamoon may kan du ma def lii ndax inni arju maa ngi yaaka ëllëg yoomal ëllëg seen njaboot dana am ko xam ne ma topp gëm ma kon yàlla pardoole leen keroog la malaayka yi wax ne dëgg dëgg la yàlla waxoon sayyiduna muhammad rauf la aja am ñee antu la rahimun ku am yër maana la keroog la ñoo xam ne sayyiduna muhammad yàllaa ko yónni ndax keroog sayyiduna omar na ko yow njool màkk yow gars yi def na lu la neew xoo dara lu tax yow ñaanoo looloo musiba te noox oorte ne junney at yu manqué cinquante ans ñuy ne lam lam la ko topp bëriwul mu mer rek ne rabbi laa tasar alal ard minal kaafiriina dayaaran yàlla kéefar bi dox ci kaw suuf daggal njuréelam bu jigéen ñi mën a ëmb bay am doom góor ñu bun seen ndox bu mu baax yàlla ray leen ñoom ñëpp yonentu yàlla ibrahim yonentu yàlla nuux nu la def omar na ko boo bu la neexoon nga ñaan lool yonent bi ne ne yàlla yónniwul ma ngir may rëbbe ولكن بعثت رحمة يالدا ما ينمي جم يرماني وي وداعي إلى الله يال ينمي مي واتي يال أه اللهم أهدي قومي فإنهم لا يعلمون يال جبل زمينت نخمو نيوي كان موتخ لا لوكو حليمة واخ يا سيد الكونين يا علب الهدى حليمة ميغي جاكولوك نيول ماكنان كو ياي سانغ انيفير بي ياي درابو نيوب يو رسول الله يا سيد نينك يا رسول الله يا اهدنا صراط المستقيم يا نجول مكه يا بدر الطم نينا يا يا وير ويغا خمنا يا ويرو مات بي يا رسول الله في وجود في مندي في نينك يا رسول الله يا ويرو مات بي مندي على المدا تي يا خير خلق الله سيدنا محمد يا يا گن تلو يالا يا من فيدو ورنا كيغا خمنا ببم nee na bëbb njool màkka nee na bëbb njool màkka mat na mboole mbindeef ci commencement ak ca door ba ak ca daye ba nee na rasulillahi mooy bidiw bi nga xam ne kawe na weer ci taar ak jekk ak rafet yow la yàlla yónni ca dëgg-dëgg daw ma ci lu sax sarmada ci lu ko nee na rasulillah yi mooy dumbala diine ak waa diine ndax naasir xaq bi la xaq mooy sayduna muhammad xalimatu nee na sayduna muhammad yaay kii nandal kéefiri kaasu raat alo ko yow rasulillahi alaaju mu niiru alimatu nee na sayduna muhammad mooy géeju xam yàlla ne rasulillahi halimatu mi nga jàkkaarloog ndol mak nan ko yaay trésor may yow siiduna mohammed neena na mohammed may mooy wurusu univers bi may siiduna mohammed neena neena nee na rasulillahi taw tabe taw ci sayduna mohammed lay barkelo taw ndol mak lay roy géej ndol mak lay roy waye bul musa wax na ndol mak kam taw bul musa wax na ndol mak comme géej géej day roy ndol mak taw day roy ndol mak halimatu ne ko ndol mak yow yaay taw tabe يو يا جم يرمان دخ يا الله مولا وخنا وما ارسلناك الى رحمه للعالمين يا نجول مكه يا غايه الامالي يا نجول مكه يا نجول مكه يا جم يرمان يا رسول الله كنالة الافاخ كل فضيله نينا بك تي يو بك تي يو نالتي امين نكو بك تي يو نالتي لا امي الافاق وخيلون ام ngëneel fu ñu toog mi ngi amee ngëneel jar barab bii mi ngi am ngëneel lu tax ma am ngëneel ci sayyiduna Muhammad la amee ngëneel wata sarafat te teddee nee na ba nga xamee ne feeñ nga yow sayyiduna Muhammad addina tedd na addina bégg na ndax njool màkk kera bu mu juddoo addina fa muuñ kontaan ndax wuli dal wudaa fal kaayinaatu di yaaw wa fa mu zamaani tabassama wasanaaw nee na mboolem biddiw yi ñu ngi tàkk ndax bég ci juddu njool màkk yow Seyduna Muhammad mooy mooy muy melaxet yi tàkk mooy mooy lamp yey mbiri yee di tàkk ndax lan yow sa Seyduna Muhammad sa dëkk ak sa juddu nee na kii mooy dëgg dëgg mooy Seyduna yónent bi xam na moom la yàlla yónni ki mottali cent vingt quatre mille prophètes trois cent treize yi ki nga xam ne moo leen mottali amee na ne nee na kii daal mooy sama lumière bu bët mooy sama ruux ñeel na ak njot xalimatu boppam gis nga njool màkk kër gum ne nga yëg na barke gis nga barke maam mu Niass nee na barke du barke du jëmm waaye dëkk bu mu dugg ñu xam ne dëkk ba barken fa jëmm ju mu dugg ñu xam ne jëmm ji barken fa alima moo gënoon a ñàkk ci jaamu yàlla yi fa mu dëkk waaye keroog bu mu jëlee njool màkk nekk ak moom njool màkk mujj na barke njool màkk topp ko ba xalimatu kuy xaaraan si añ ci moom ngay xaaraan si kuy xaaraan si ndékki ca xalimatu ngay xaaraanee ku bëgg problème bi faju da ngay ñëw ca xalimatu dee ko sa problème mu faj ko ndax bu ko faju doo faju ndax xalimatu bañoon te ñëpp ko bañoon waaye ba mu amee ñëpp ko sopp ndax sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wa salaam xaalimatu gis na njool màkk mu mel ne weer wu man fan ak juróom wala weer am fukki fan ak ñeent moom njool màkka nee na xaalimatu naan kii mooy sama dund xol moom rasulillahi gannaaw bi mu dee sama xol bi mu dee ku ko dundal mooy njool màkka nee na kii daal aji rafet ji kanam la moom rasulillahi نينا كي دال موي كيغا خامنا موم لا نييب ورا روي موي رسول الله فلما دعونا من سر البدر الحاج منصور حاج منيرو قصيدة بوب الحاج منصور كو ديف 1944 تولو تي 44 يور يورو التيني موي بس بي اير بي مو جوبلو راو رسول الله جوغي مكه المكرم def la def te yonent mo wax man hajja wala ma yazurni faqad jafani ko aj makka wor kaabe dem taxaw safa daw safa ak marwa dem arafa takk sa bagage dellu fi nga jógee Moustapha ne dëgg-dëgg gàccal nga ma rusloo nga ma te ku rusloo yonent bi yàlla nga rusloo alaaji Mansour dégg xadis yonent bi ba mu defee farataam ba pare sol yére bi dàq ci yére yi ndax mi seeti moo dàq ñëpp mar boo xaamati la abyadallahu ni jamilal suurati wa fasaxal kalaami kaamilan fi zaati mukamalan fi awsaafi xilqiya maa xalaqalaahu xablu wala baadu mislu fi l anaami moom rasulilahi alaaji Mansour xam ne waa ji may seeti lu yàlla bind moo ci dàq waa ji may seeti moo dàq ñëpp kuy amee taar yaa ngi amee taar ci njool màgg waa ji may seeti daal parfum ba muy xeeñ kenn xeeñu ni moom parfum bu waa ji may seeti ñaqam moo dàq parfum waa ji may seeti bu ñaq woon umu salmat daan na jël morsa di ko fomp ci ñaq rasulilahi yóbbu ko ci bërigo dugal ko fa xooj ko ba mu bàyyi mu def ko ay ay ay ko jaay dàq parfum wu àddina njool màkk ba ñaqoon parfum moo dàq lépp bu ñaqee ba fendi da ngay yaakaar njool màkk dañ ko maquillage ndax tellement que taar ba li muy bélbélee day yokk nga koy kool di ko gën sop sopp di ko xool di ko gën a bëgg alaaji Mansour ne waaye ji may uti tey kon bi dàq ci sama yër yi lay sol waaye ji may seeti daal parfum bi dàq ci parfum yi lay lay lay parfum ndax parfum ba génne ca bàmmelam amul benn parfum bu mel noonu alaaji Mansour jublu raw de rasulillah yor yoru altina lan la ko lan la ko wax falamma dalaw ulaa min sanal badri hudan nee na ba nga xamee ne moom lañ jege min sanal badri wan jala ba ñu jegee lan la ñu jege mooy leeru weer yi wan jala la wuññee ko pavillon bay dóor guus ak dura alaaji Mansour nee na pavillon bi nga xam ne moom leen muuree njool màkk daf na fànn mën a njool màkk na fàng ma jàkkaarloog njool màkk rasulun alaaji Mansuur jox njool màkk loxo ne ko rasulu ndaw nga yow rasulillah ndax xamidun sant nga santaakoon nga kooku la wax Muhammad ku yàlla soloo kawe nga yow sayyiduna Muhammad fawqi simaa kayni saamiya Seydina Muhammad Alaaji Mansuur ne ko kawe nga biddiw si maa kenn saa mais lu ñu yëkkati ko yëkkati ndax ñaari biddiw yooyu biddiw yu kawe leen Alaaji Mansuur ne ko njol Mbàkke nga ci biddiw si maa kenn saa mais ci yow man xiyaam njol Mbàkke rek la ñuy gàttal ay salaatu wa salaam fa tabaarakallaahu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam xajul ci benn jotaay xajul sax ci dund yëpp boo ko doon waxtaane moo tax xam naa kon liñ ci am rek ñu doyloo ko macha allah xol yi sedd na macha allah woy yi neex na liñ ci doon njort suñu njort naxuñu fa tabaarakallah kontaan nañ torop te yaakaar naa tamit képp ku ñuy seetaan tamit sa xol sedd na macha ci ni ngeen taggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu bëggoon rek ñam tuuti ci cinq minutes yu ñu desee ndax ku ne yonent bi na Cheikhu Tidiane mhm. ngeen ñamal ñu tuuti rek ci Cheikhu Tidiane ci cinq minutes yi des mhm. comme ça ñu tëjee ko mhm. ndax mooy suñu bunt ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam Seydil Hadj Malick moo ñu xamal kat mooy Cheikh Omarul Fouti yu Cheikh Fouti yi moo ñu xamal kan mooy Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane kenn mënut dem ci yonent bi te jaaroo ci moom radiyallahu anhu ba tax na ñu barkeelu ci tuuti rek incha allah waaw tabaaraka alxaju ma nii yaakaar kat mhm. bi bim passé iya, yagul wa nga ñamal ñu ci touti rek ñu tëjee ko émission bi insha allah mhm. ndax ndax ñu ñu cheikh mhm. ndax bi allah fi wax ni ci weeru safar la sayyidina muhammad ko mosal ci safar ndax xam safar bi am bi laal ci weeru safar moom Seydina Muhammad bokk ak Seexu Tijaan bëri Seexu na Tijaan bokk ak maamam bu bëree bëri bëri ndax Cheikh la Serigne Babacar waxoon ne Seydi Ahmad Tijaani yonent yàlla Muhammad moo ko yar muy njabootu yonent bi xaqan nag ndax rasulilaay moo jàkkaarloog Cheikh dafa anta wala lii xaqan Cheikh sama njaboot nga dëgg dëgg Cheikh sama njaboot avant loolu Cheikh gëmutoon na moom luy gaa yi wax naan shérif nga gëmul ko woon waaye bi njool màkki jàkkaarloo ak moom na ko anta wala di xaqan sama njaboot nga kon la seexu na tijaan yëg ne moom njabootu rasulillahi man xabbaka xabbani wa man abqadaka abqadani hmm. hmm. cheikh ku la bëgg rek man la bëgg cheikh ku la sopp man la sopp cheikh ku la bëgg man la bëgg waaye ku bañ seexu na tijaani njool màkk nga bañ hmm. سيدي احمد تيجان لول لا كنجول ماكا واخ موتاخ شيخو تيجان ني يالا ديفري يونت يالا محمد نول لا شيخو ن تيجان يالا تانلي اي ويجور با شيخو تيجان نيو كوي سا باي محمد كوي سا ياي عائشه كون كين خم كان ما سيدي احمد تيجان شيخ نينا يونت يالا محمد مو يالا نخ ربا بلا قلوه اصحابه علنا حتى السغام فيا الله من حاول شيخ yonent bee يار شيخ cheikh wëlbati نيو يار نجابوتا موم moom نتيجان tijaani رضي الله كون قتل وجود الذي ابدا ولايته ربي وادم wa aadamu wa wa tiini loolu cheikh ndax ñol mak bi mi nek yonentu bobu adama baynal may watini cheikh ba mi nek awliya bobu adama baynal may watini motax cheikhuna tidiane rasulullah moy sayyidul awli moy sayyidul anbiya wa cheikhuna tidiane moy sayyidul awliya rasulilaay mooy sang yeneen yépp waaye Seexuna Tijaani mooy sang wali yëpp moo tax rasuulullaahi ki ngay jàng ci jawharul kamaan kii duy géej gi ba géej gi fees mooy sayyiduna Muhammad al ko lugg ko lugg ko ba mu wàcc yónent ba ne la nga war a jot nga jot ko mhm. boo ci bu ñëw ci yónent ñëw nga capté ko direct da jaaru ci sayyiduna Muhammad da nga lakk ba mel ni karaw gun teg taal lu mu wéy noonu ngay wéy waaye bu génnee ci yonent ya fa muy jëm moo ci Cheikhuna Tidiane Cheikhuna Tidiane nee na man maay teqal mboolem waaye loo war a am ci ci cër man maa la ko yàqal si Cheikhuna Tidiane xoolal xasaan mooy way kan mooy la ki nga xam ne moom la Seydina Muhammad doon misaal di ko misaal naan ko Omar dana am koo xam ne dana ñëw ci nitu yàlla yi. nekk koo xam ne du ñëwee na ko gëm ba nga weesu xare nii. ko misaal ñu daanee foofu. dafa toog di wax na ko. weesul xare nii dana ñëw ci jamono. dafa jëpp melokaan nanga la mel. ba ñëwee na ko na ko sàkku ci moom ñaan ak looy nekk nekk saxaaba sàkku ci moom ñaan ndax lu mu la ñaanal mu nangu. Seydina Muhammad denc dossier yëpp bind la melokaan ba Rasulullah waxoon yëpp ci weesul xare nii. Rasulullah génn àddina Omar yore dossier yi Seydina Aboubacar toog ba génn àddina Omar yore ko yore desi yëpp keroog ba Seydina Omar ibnu Xataab def délégation Omar dalal leen ñu na leen fi ngeen jógee ñu ne ko Iraq fan ngeen jógee ñu ne ko Bagdad ci Iraq ndax kuñ naan waysul xarani nii ci yéen am ah, na ko tudd waysu de ci giiru xarani la bokk Seydina Omar ne bu wax ndax jool maa waxoon na ma melokaan ya

Mhm. xool sama diggante ak njool màkk ñaata leer a fa dox waaye ba ma xoolee sama diggante ak njool màkk gis naa ne mille leer ñoo dox sama diggante ak njool màkk te nag benn leer bu mu ko jegee woon nag danaa ruye ruy ba mel ne karaw goo teg te taal lu muy royee noonu la ñu melokaanoo kenn si daa xamee tijaan yi yàlla yàlla may cofeelam ñu ne nekk dëgg taalibe alxaji mu niru xam naa ne yooyu daal lañ ci yëkkati ci kàddu tabarakallah kontaan nañ doy na sëkk Euh, xol yi sedd na macha allah di kontaan bu baax di ñaan yàlla yàlla yàlla def seen jéego yi ngeen def ba ñëw fii yëpp mu nekk yiw te tamit ñu yàgg ko feetee ni incha allah yàlla yokk béréb bi yokk place bi ba mu nekk télé bu mag incha allah ñu yàgg ko teewe di ko di ko feetandoo mu mel ni kon tey dañoo jagleeloon rek plateau bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ci weeram lañ nekk donte sax weer yëpp weeram la at yëpp atam la Euh, moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu jagleel ko weer wi nga xam ne moom la juddu di ko ci gën a màggal di ko ci gën a bàyyi xel ñu ne woon nag kon seen émission religion et société du ci des ginnaaw ñu dalaloon fi tamit ñoo xam ne mate nañ jotaay bi macha allah doonte sax ñoom weer bi weeru yonent bi bu xasee teru rek amatuñ benn jot ci tànt yi la ñuy fanaan ci la ñuy yendu waaye malgré seen ñàkk jot yëpp biñ leen ko waxee dañoo dëgg seen lépp ñëw teewal ñu loolu tamit lu rëy si ñun la lu rëy ci waa Safina la aussi ñu kontaan ci trop macha allah kontaan loolu way yi neex na waxtaan bi macha allah xam-xam génn na fi tamit fa tabaarakallahu yàlla na yàlla kon seddal xol yi incha allah. kon mbokk yi lii moo nekkoon seen jotaay tey ci religion ak société di yaakaar na tamit e, xol yëpp sedd na آه، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته